population yi comprendre parce que quand même depuis 2012 le président a fait ci plan décennal bi mais 750 euh, milliards là, te ñu ngi huitième année donc ça veut dire que il euh, faut ni li ñu dund war nañ responsabilité est bari est-ce que liggéey bi faire def correctement def nañ Le président war le faire. war mais aussi euh, maire yi nga xamante que nous fu faire des leen duñu fu nañu dagg fa suuf fu fu yoonu ndox yeeg euh, kër ndox yi yëpp ñu dagg fa ay suuf jox ko nit ñi bàyyi lu ñu installé loolu kenn kenn su ko gis boo demee ci yenn zone yi ay da ngay xaw ngay xool ak kaw la da xam ne lii marécage la ñu installé fa euh, nit ñi ay ay cuvette maanaam ay ay kamb nga du jël nit ñi dagg nga sëkk rek jël nit ñi kii daa daa daa di daa di kii boo defee ndox mi dootul am fu mu fu mu jaar garab yi nga xam ne dañuy dañuy empêcher inondation ñu ñu dagg leen loolu loolu moo fi nekk loolu nak dañ ci dañ ci wara dañ ci dañ ci wara a té gis nga affaire taw bu bari il faut ñu xamni ni dootul il faut ñu attendre à ce que taw bi di di gëna bari parce que dafa am li ñuy wax dérèglement climatique ndax euh, ci donc euh, couche de zone bi nga xamné dañ ko agressé mu am ay effet de serre ensuite euh, donc ça veut dire que ndox mi ndoxu géej yi ndoxu day gëna day gëna ñëw ñu nangu kër yi mais aussi évaporation day gëna bari su ko defee taw bi

ndox du bàyyi yoonam te dëkk dafa am li ñuy wax aménagement du territoire dëkk dafa am foo xam fa la ñuy dëkkee te Sénégal dañu war tabax en hauteur di tabax ci kaw ñu bàyyi aussi yoonu ndox ak kër ndox yi ñu bàyyi kook ndox mi parce que ndox moom du bàyyi yoonam illaa yomi din ñu bàyyi aussi garab yi àll bi fu mu war a nekk ñu ñu ñu ñu bàyyi ko fa li ci des ñu def ko ay ay tool mais fi nga xamante bu fi ñu fi ndox fi mais bu mais situation mel rek président vraiment mu mu mbiru li mu donc financé inondation est-ce que def correctement ou non parce que lii vraiment kenn comprendre